africain te li ko gën a waral ngaa la ak ñoo setaan mooy manque de diine manque de foi ngaa la soo amee foi doo ragal soo amul foi da ngay dangay ngay ngay da ngay oyof donc dañ lay dañ lay drive noon ngaa fonctionner bu ni lay driver nag noonu ngay bëggee drive ñëpp nga ñëw nag dajeeg ak koo xam ni moom danaa mais yow yaa am doole dafa loo neex mais yow li ngay am am doole am na ku la ëpp doole nga taxaw di ñàngal naan ko kan moom ëpp doole mu ne la yàlla mi la sàkk xuli yàlla pes la pa pes xuli wuy ma ñu ne euh, président ba euh, mënul bouger marre des taal on le souhaite à personne ñaan luñ ko président Sall ak ñi mu àndal yàlla nañ nekk si jàmm c'est juste pour illustrer et dire que on ne peut pas cest dire que euh, ñun yàlla sàkkuñu pour ñu torox nii di continuer nii depuis 60 on parle d'industrialisation de motorisation d'agriculture intensive de nangam nangam nangam ça s'arrête sur du verbiage parce que sincèrement appliqué wuñ ko lan moo tax des stratèges sénégalais def des documents de développement pour le Rwanda et tant d'autres pays muy marché pour ñoom te marché wuñ pour ñoom parce qu'ici il s'agit il s'agit de deux choses volonté ak décision on peut avoir la volonté suñu président yi ñoom ñëpp ku ciy wax am na volonté bi bëgg na mais bu ñëwee ba toog du mën amul décision bi décidé wul dara parce que am na ñeneen ñuy décider naan ko fii ak fii ak fii muy fonctionner selon loolu alors qu'aujourd'hui Naboucor lan moo ñu teree dem dans le sens inclusif du terme. moo la lenn sunu ay population kaay leen ñu waxtaan. lii moo fi nekk dina tarde dina metti mais nañu ko dékkoo nii nañu ko dékkoo nii bu ñu déparé fii dans cinq ans dinañ toll fii mu sincère nga gëm yàlla nag mais bu fekkee ne da dangaa da ngaa gëmut yàlla yow fi nga toog sax yaa ngi naan xulil yaa ngi naan tubaab yi léegi ñu dóor ma bal maar day taali parce que lépp ngay ragal. mooy jur par exemple nga ne buntu palais bu fa kenn jaar jur ginnaaw apix nga ne non wiri leen jur c'est-à-dire nga bunkeriser wu yàlla toog di xool nan mii kii il n'a pas compris un temps. Mbadou moo jur tamit nag loo wax loo wax ren suba nga soppi ko. exactement xale yi di la xale yi di la vaar xale yi tuuti et j'ai j'ai mal cest dire que tey président Sall kilifa bi ak worma bi nu am si yow ak yëg ak wekk ak fonk parce que nag quoi qu'on puisse dire ñun noonu la ñu dañ ma wax mag kër Lebu yi moom loola fa mag. baay baay yaay taaw kasa topp kasa toppaat loolu la ñu xam te defe naa loolu moo am ci kër yi mag yépp ci Sénégal. Mhm. ci jaboot yépp ci xeet yépp waaw kon bu ñuy wax ci président Sall ci cëru mag ci cëru institution. ci cëru doomi aadama ci ci cëru sax sens sens d'humanité rek c'est-à-dire doomi aadama quoi nit ak nit bu paree ni kii sénégalais la comme ñun. dañ ko yéen a jàmm sax da ngay da ngay tënk lépp institution wax dëgg yàlla da ngay tënk lépp. non au-delà de l'institution y a l'être humain avant sax institution bi y a l'humain. l'homme l'homme sénégalensis nga ne ah kii kat doomi aadama la nga am njort bu rafet yéen a la baax mais aujourd'hui su fekkee ni que. da ngeen ñoo jiite président te mayu leen ñu ñu wax leen jafe-jafe yi ñu am wax leen problème yi ñoo dund vous refutez refutez et refusez tout ba pare nañu noo gëm leen li may wax man point mais ñun nag tamit sa sanu xel nag doo ko moom lanu neexu xalaat mais un temps soit peu ñi ngeen doon ñëwee bi ngeen bëggee falu Seydou Gueye télé boo jàpp fekk fa nu kaa nuyu ba baax Gueye sanu bokk bi ala ñu bokk bopp ak kilifa yëpp ñoom Benoît Sambou grand maa ngi laa nuyu ba baax magi Alice nuyu laa ak ña sa des ak kilifa yëpp nekk ci télé yeeg rajo yi wax ñëpp di dégg. Mm-hmm. ngeen falu rek disparaître on ne vous voit plus on vous entend plus vous vous êtes éloigné de et vous vous vous aviez tellement besoin de nous ngeen dëdduñu. ba pare boole kook ay ñàngal ak ay mer ak arrogance arrogance moo daaneel parti démocratique sénégalais bi ñu fi nekkee ci nguur gi Abdoulaye Wade avait un temps soit peu waxuma sax de bonnes idées volonté bi c'était affiché yéene bi on le sentait malgré tout la fausse note de Abdoulaye wadd mu ngi dépare ca mille 2004 diggante deux mille ba mu faloo jàpp 2004 4 ans yooyu nga xam ne on avait Moustapha Niass comme PM sanu baay bi on avait Idrissa Seck avant Idrissa Seck Mame Madior Boye sanu yaay bi bi nga xam ne moom malheureusement moo tombé sur le Joola ak ña si des et après qu'est-ce qui s'est passé le président Macky Sall est venu en 2004 mais diggante boobu Abdoulaye Wade nit ñi dañ doon wax bàyyi leen góor gi mu liggéey on est resté 4 ans le président Sall quand il venu. de 2012 à 2016. On est resté 4 ans, mais entre 2012 et 2014, il a tenté quelque chose. Annoncé nañ ñu pétrole gaz nouveauté yaakaar juddu 10 ans après ñu dellu gannaaw ci débat boo xam ne du pétrole gaz du industrie du économie du dara ñu dellu en arrière dans les années 60. dellu ci débat wu lan. débat wu toskere ñelle mooy damay toog doo toog keroog dégg naa benn kilifa mu naan wëy. affaire u toi que je waaw jógal ma toog du fi am jógal ma toog moo fee am nag fal nga ay wi jeex na doo dem nga ne jógal ma toog du fi am waa lii la mu doon. toog moom bu am. non c'est-à-dire <laughs> ko neen neel am na loo xam ni lu mënut a nekk mënut a nekk lu war a nekk mooy nekk yoon nangam waaye du jógal ma toog ah te bu jeexee doo jóg ah, doo jóg. tàccu leen. Seck dama ne woon nii dama leen di baal tey du ma baal. non il faut ma lii foog ma teg ko. non mais ba may ma may ma tuuti. am nga ci Pape Malick Ndour. waaw. vaar bi. mooy bi muy wax ci waaw tegal boobu man am naa beneen. y plus de cinq ans de. waaw xaaral may jox man bu nouveau. waa dama lay jox beneen ma bu bees. waaw maam waxi tey ñu mengale du rek. waa parce que Seck yaa baax nag. y a problème. président des jeunes qui sont engagés à soutenir. kuy wax ni. des jeunes qui ne sont intéressés. ni par des prébendes, ni par des postes de responsabilité, mm-hmm. des jeunes qui ne s'engagent pas pour sauvegarder des acquis. Hein, quand je parle d'acquis, je parle de postes de responsabilité haute, mais qui sont plutôt engagés simplement, purement à soutenir de la République, à assurer la communication du parti, mais aussi à vulgariser les actions de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mm -hmm. différent avec euh, les autres initiatives qui dépassent l'horizon 2019 et qui ne sont Euh, euh, mu que par un devoir de vouloir créer un parti dans un parti. Et ces gens-là euh, ne sont personne d'autre que ceux qui ternissent l'image du parti. Ceux qui ternissent parti, c'est ceux qui s'affichent avec des transhumants euh, qui, il y a de cela quelques mois, quelques jours ou bien même quelques minutes avant, euh, euh jetaient le discrédit sur le président Macky Sall. Disait au Sénégal, le président Macky Sall pas de vision. Donc ces gens-là s'affichant avec eux, c'est simplement euh, ternir l'image du parti. Et c'est ce que l'initiative 2035 a fait. Donc, notre action au-delà euh, de, de, la défense donc, euh, des actions du président, mais aussi de la vulgarisation des réalités du président, mais aussi notre action donc, à faire face à ces imposteurs qui, il le dire, euh, euh, ternissent l'image du parti. initiative 2035 parce que comme nous l'avons dit, nous, notre initiative n'est pas très lointaine. Notre initiative, c'est simplement la réaction de Maxal. Mais leur, eux, leur initiative, c'est de créer un groupe d'amis, c'est de créer euh, euh un, parti dans un parti qui peut être assimilable à la génération du concret de Karim Wade. Donc aujourd'hui, nous estimons que, que, euh, euh, euh, n'a aucune différence avec Karim La seule différence qui existe entre Karim et, et c'est que Karim fut le fils du président et Mambé le fils d'un opposant. Mais leur action, dans le cadre de la destruction d'un bien commun qu'on appelle communément parti ici, dans ce cas, donc c'est la même chose. Voilà, lui, il s'affiche avec des transhumants, il fait la promotion des transhumants, il fait euh, euh, euh, euh tout euh, pour gâcher le parti. Et ça, nous, nous, nous, saurons le tolérer, nous saurons l'accepter. Donc, et puis, au-delà de cela, nous pensons que son image même aujourd'hui pose problème. Aujourd'hui, vous savez, prendre un est présentée comme étant des personnes qui sont capables de défendre l'action du président. C'est insulter l'ensemble des jeunes du parti, c'est ternir l'image du parti, c'est insulter le parti, mais aussi c'est même manquer de respect aux Sénégalais. Parce que ces gens-là, personne ne les prend au sérieux. Mais cela ne nous étonne pas venant de quelqu'un qui lui-même pose problème. Parce que l'image de Mambéna aujourd'hui pose problème. Un ministre de la République qui ne sait pas faire la différence entre les pays de l'UEMOA et les pays de la CDAO, un ministre tout le monde qu'il n'est pas capable donc euh, de de de de de de régler le problème de la jeunesse parce qu'il fut ministre de la jeunesse mais aujourd'hui on doit faire son bilan mais c'est un bilan nul et c'est la raison pour laquelle le président de la République pour faire face à cela et eh bien pour corriger ces imperfections là a créé la délégation euh, pour l'entrepreneuriat rapide cela n'est rien d'autre qu'une exaltation de l'échec de Mame Pape Malick Ndour eh, ñëw wala ma ñëw ci beneen rek. man demal demal ci beneen.